salaamaaleykum waa Thiès nee naa leen benn dëkk ñaari gaar nee naa leen émission lu fi xew du ay caaxaan nee naa leen barki maa ngi jóge ci Sidi Diop tey jii maa ngi fii ci sem Daaru Salaam damaa bëgg nag sama gaay yi ñu doxantu ndànk dugg ba ci biir sama rakk na def. yang ci jàmm bu baax sax ci école bi ngay jang waaw ban classe nga ne man 3e 3e nga ne waaw ah waaw di préparer lan BFM BFM waaw ak ah, kon yalla na la ko yalla may amiin way ah sama rak na nga def may fi manam yang ci jam may jam waaw xamé nga micro bi xamé na ko mo ties Info moy ties Info ties Info waaw wa ñom tay dañu ñëwoon fi ci sem daru salam di fi def ci émission lu fi xew waaw émission bi lee amna solo wa app ñoko organiser mm-hmm. amna solo lool mm-hmm. waaw ka kon ni doxantu ba ci biir newoon naa la fu nekk laay doxal tu ma kenn tey nag maa ngi ci sem euh, Daaru Salaam maa ngi nii ci biir euh, manifestation bi kon damay bàyyi ñu doxantu tuuti ñu daal di jël xale kon dama ni nga ñëw na nga def yaa ngi ci jàmm waaw maa ngi ci jàmm ci école bi ngay jàngee waaw ban classe nga ne troisième troisième kon BFEM ngay préparé waaw lu la gën a neex ci école bi ah école bi moom li ma si gën a neex am na jàmm am na salaam te professeurs yi dañoo bëgg élèves yi. waaw moom si gën a neex. kon am na jàmm am na salaam. waaw. mbaa yéen du ngeen grève. non non ñu bokk ci. yaa ngi ci CEM Daaru Salaam. waaw maa ngi CEM. ban classe nga ne. maa sixième D. sixième D. Ah, looy préparé yow. man maa affaire bi daal. affaire bi seen manifestation bi mbaa am na doole. waaw am na doole. neex na. waaw neex na bu baax. ah ko dew kan moo la yor. kan kan monsieur Sankare moom la yor. ah monsieur Sankare. waaw loolu yaay jàngal xale yi. non non parent d'élève la. parent d'élève. sa doom mu tudd. Ndeye Anta a ah Ndeye Anta Dari. ah uh-huh. uh, mu ngi def ban classe. mu ngi def cinquième. cinquième tey nga ñëw wuy si leen. waaw dama ñëw représenter UNAPES Union nationale des associations des parents d'élèves et d'étudiants du a ah, kon man émission lu fi paré na pour liggéey ak yéen bu ngeen ma contacter rek ma ñew inshallah sa doom ji ban classe la mi ngi 5e C. mais dama ñëw représenter UNAPES. ah UNAPES waaw. Union nationale des associations des parents. mom fa la nek de bibliothèque pédagogique. néna lu fi xew du ay caaxaan. néna bayiwuma bàyyiwuma benn artiste bayiwuma benn serigne bayiwuma kenn. barki dem boy Ndiaye ci sir job la jóge tay ma ñëw dal ci sem dar salam kon bu ma ñëwee yem ci ñi nekk ci école bi dama ciy sawar. waaw asalaamaaleykum woote nag ñu wuy si la ci sant yàlla la ndax xam nañ ni koo woo mu wuy si la fonk na la ñun nag ñun ñu toogee nii ñun ñooy waa surveillance man maay madame Ndiaye kii beneen madame Ndiaye kii mooy madame Diallo ñun ñett nag ñoo yaay xale yi waaw ñoo ne nag ci côté pédagogie bi ak ci côté surveillance bi ndax ay xale boo leen di gérer laaj na nga jàngal leen laaj la aussi nga toppatoo leen ñu ànd ak ñoom nag loolu rek ca ba école ubbee ba léegi waaw yàlla def nag lu rafet ñu dem bay def lii kon dañuy sant yàlla di sant suñu borom yal nañu àggalee nag suñu sago tàmbalee nañ nag si bisimilahi rahmaani rahim yal nañu àggalee suñu sago comme ni ko madame Ndiaye waxee rek ñun ñoo yaayu xale yi nekk fii ci école bi rek di jàppale xale yi nekk ci côté pédagogique bi nekk côté administration nekk yaayu xale yi daal di leen jàppale ñu am nag tey waa apt ñu am programme apt ñu ñëw ànd ak ànd seeg ñoom mais ni ma fi gisee ci école bi ay xale yu ndaw laa fi gis ndax jàngal xale ndax métti na wala méttiwul moog jàngal mag ban différence lañ am waa jàngal xale moom métti ñii nag ñooy à partir de la sixième pour troisième xam nga âge boobu da di âge boo xam ne dafa metti ci xale yi boobu la ñuy ci âge de la puberté buñ ci dañuy mais dara da ngay jubbanti rek di waxtaan ak ñoom surtout di waxtaan ak ñoom parce que di communiquer ak ñoom parce que la communication elle est à la base de tout et elle est très importante waa ci loolu daal lañu ne. madame Diallo maa ngi def fi rek soxna. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm. li ma laaj sa morom mi rek dama ko ni jàngal xale dafa metti lool. man bi ma yegg see xale yi yarute giñ ma won rek ma gën a ah ñun loolu moo nu war metti na waaye loolu moo nu war surtout ñun fii au niveau de la surveillance ñun ay surveillante nañ fi waaw ñun loolu mooy sunu sunu sunu liggéey fii jël xale yi ku teguwul si yoon nu teg la si yoon du ne éduqué ku si joteeg prof nu jéem a fexe nun ko réglé ñun loolu mooy sunu liggéey fii su école bi waaw di jubbante xale yi ku sol sol boo boo jaaduwul nu jéem ko wax ne lii nga sol baaxul ku fi def ak jàppanteeg prof nu woo parents yi nu réglé ko si sunu biir ñun loolu mooy sunu liggéey nu di ko def kon daal kontaan nga sa école bi ak élève contane na bu baax ci fi ci biir sem bi ki ma taxal mooy monsieur Thioune monsieur Thioune na nga def. maa fi maa fi sant. yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant baax maa ngi sant jàmm. tey da ngeen di feetal seen élèves yi. waaw tey dañu organiser benn fête euh, fii ci école bi ñu koy wax benn projet bu tudd projet euh, projet apte benn projet la boo xamante ni dañ ko mettre en œuvre ici au niveau de l' école ak yeneen école ñu choisir au niveau national pour euh, jàppale xale yi. kon bu ma déggee loolu dafa mel na ngeen am ay partenaires. wa un partenaire parce que euh, c'est en relation avec l'État du Sénégal et les bailleurs de fonds bon donc euh, non la les les objectif bi euh, encadrer au-delà de l'enseignement classique au niveau des classes nous appelons leen pour que nous nous mettre en œuvre nos propres projets pour nous insérer dans le marché du travail voilà. Ah, ah, merci beaucoup merci jërëjëf. Eh, sama ma émission anglais dina metti ndax ci mi jëm kat anglais I'm fine. Fine you. <laughs> thank you, thank you very much. Alors, nous sommes nous sommes, Salam, le euh, nous fêtons la journée En même temps nous récompensons nos meilleurs, nos meilleurs élèves de cette année. Voilà. <laughs> Oh, ah, okay, uh, today we are we are having a, a feast of our school Darussalam, just to the closing of up classes and uh, also the congratulation of our best student for the second term school year. Eh waay, monsieur Bakhoum de làkk na ko ci anglais ah, léegi ba pare dinale leen wax li mu làkk mais pour les xalé yi ndax man fi ay xalé 15 ans 20 ans la fi gis. 17 ans 17 ans ndax jàngal leen anglais pour ñu tel ko mokal ndax du euh dina dina enfin bu bu ñu en classe 6e 5e nay neex parce que anglais dafa la matière bu bees pour ñom donc forcément dañ koy bëgg mais au fur et à mesure comme dañuy bu ñuy 4 classe 3 e euh, mbëggeel bi day xaw a wàññeeku parce mbir mi day xaw a xaw a métti te comme si yéen da daan da daan yomb parce que da daan am engouement bi en fait à certain moment à un certain niveau comme affaire bi day xaw a corsé itam te su dee ñoom. Ah, Euh, apprentissage bi aussi suivre suivreul suma day xaw jëf jëf mais xalé bëgg nañ ko quand même. xalé bëgg nañ bëgg nañ ko parce des fois dinañ leen informer par rapport ak importance anglais et tout ça anglais ken mënu ko ken mënul dem ken mënul dem baye karat de léegi dans tous les domaines daanaka que ça soit yow mi yow mi journaliste dans le domaine des médias yo xam nga ci dara dara ak ma dégg anglais. maa ngi taxaw ki nga xamanteni moy monsieur Sankharé professeur mathématique man nag mathématique dama ci ay lol ah ku weddi la jël Malick malik nee naa ko anglais ak mathématique dama ci def lu dara jarul yaa ngi ci jamm alhamdullilah ñu ci jamm wa tey nak Thiès Info dañu ñëw fi ci sem daru salam ñu ñëw seet ci leen ndax yeen mënu ñoo dem tay ak suñu ci yeen wa lool mom def ngeen lu rafet vraiment sen taxway rafet na ñu ngi leen ci sante di leen gërëm vraiment ki visite bi ngeen ngeen ñoo def suñu sem wa école bi dama doon laaj ban année lañ ko sos bon école bi mën naa ne man deuxième année bi ko sos ci laa fi ñëw donc. Euh, boo boog léegi ñaata at la. Euh, c'est en 2000 combien la création de l'école c'est 2004 hein 2004 2004 parce que man 2004 daan 2004 euh, bi muy def bi mu amee deuxième classe cinquième bi mu amee sixième cinquième ci laa fi ñëw y avait que deux classes vraiment ñu nekkoon ci école élémentaire bi élémentaire bi abal ñu ñaari salle de classe avec un principal Ibrahima Mbaye vraiment principal bu dynamique vraiment koo xam ni mën naa ni auto moom moo doon bureau école bi ci la doon def bagage yeeg affaire yépp ci la ko doon def vraiment vraiment y avait le désert moom moo fi nekkoon vraiment ñi nekk fi ak moom di ñafe di ñafe di ñafe ba laata euh, il y a deux ans de cela ci la dem retraite avant muy dem retraite nag ci la réaliser lii yëpp ci la lii yëpp am ci lañu tabax bloc administratif def fi bâtiment yépp c'est sous Ibrahima Mbaye vraiment Daaru Salam vraiment war nañ ko delo njukkal dem naa ba ni ko sax yow monsieur Ibrahima Mbaye école bii école Daaru Salam la tudd CEM Daaru Salam mais CEM Ibrahima Mbaye lañ ko war a tudde waaw de passage ñu nuyu monsieur Ibrahima Mbaye monsieur Abdou Samb tey dama laa fekk sa école kii nag sama parent la sama papa la sama lépp la ndax macha allah

Ibrahim Mbaye la fenêtre principal boo xam ni moo ko sos def fi liggéey boo xam ni bu am solo la école bi formé maintenant ay ingénieurs formé nañ des officiers formé nañ fii des professeurs euh, actuellement aussi on peut dire qu'on a euh, formé ici des élèves qui sont devenus des médecins des pharmaciens etc. donc Bintu li ma c'est fondamental dans la vie de l'homme nit ki dafa war a jàng boo jàngee am xam-xam yàlla may la wér-gu-yaram dara ñàkkatoo ko wasalaam waa ah. waaw borom karaw gu ñuul ñàkkul dara loolu wax dëgg la. taxaw ki nga xamante ni mooy Omar Ndiaye président. APR. APR yaa ngi ci jàmm émission lu fi xew ak Thiès Info dañu ñëw tey ji ci le sem Daaru Salaam. waaw maa ngi leen di remercier waa Thiès Info di leen wax ni man maay Omar Ndiaye président association des parents d'élèves du CM de Daaru Salaam. bon di leen wax ni école bi ñoo fi depuis 2005 nekkoon fi ak le principal Ibrahima Mbaye bon bi mu retraité ñu nekk ak le principal monsieur Ndiaye bon di wax ni man tey ji école bi xale yi fi nekk yépp yalla def na man maay sen parent ndax école bi amna lu tolok 1900 élèves 1900 élèves yooyu yëpp yàlla def na dañ ma jiital ma yoré APE bi tay jii nak mu nekk bisu mbégte parce que parents d'élèves bo démé bañu ñu ni la tey ji dañuy sargal say doom lolu mbégte la parce que lolu taxo ñu indi suñu doom ci école di remercier vraiment le corps professoral di remercier projet apte bi nga xamné mom moy mooy tey jii di njukkeel suñu doom yi di wax ni école bi ñu fi nekkee ba légui ñu ngi ci jamm problème yu bari yi nga xamné day am ci école yi entre l'APE et les enseignants ñun yalla mussel nañ ci on travaille en parfaite collaboration avec le principal et les professeurs d'école vraiment di ñaanal suñu doom yi nekk ci école bi yàlla defal leen ndam vraiment ba ñu génn ci école bi dem ci yeneen école yu gën a kawe je vous euh, dafa mel ni tey da ngeen di sargal meilleurs élèves yi nga xamante ni ñoo nekk ci école bi. waaw tey dañuy sargal meilleurs élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci élèves yi projet bu ñuy wax projet APT Sénégal moo leen di sargal bon loolu nag xam nga parents d'élèves man loolu mbégte la ci mag parce que bu fekkente ne lu tolloog junni ñaari junni élèves ñu ngi fi seen i parents jiital ma ci école bi. tey yu ñu dem ba am ñu ñuy sargal ci ñoom loolu dafay nekk source de motivation pour ñi nga xam ne dañuy sagal dañ leen di sagal di encourager ñeneen ñi nga xam timit tamit fofu di ñaan vraiment projet yi di ñëw ñu sargal ci ay yeneen yeneen yeneen élèves. madame Aw professeur histoire géo. ça va na nga def. ma ngi ci jàmm. ça va bien. bien merci. ah tay nak dañu ñëw sen école bi dé waaw ok dal leen ak jàmm. Mhm. waaw Darou Salam euh, c'est une école comme tous les autres écoles il y a la paix l'école a été créée en 2004 je crois a un problème on vit en harmonie ici y a un problème. A élèves il y a un problème xam nga rek a un da ngay un ku y ak sa problème. Il y nga wax nga a un euh, éducation Il ak yar mais mais fii amul benn problème. waaw waaw dafa mel ni marraine u école bi mooy ñëw nii mooy marraine bi tey waa Sem Jaaru Salaam ñu marraine ko bis bi kon loolu daw na yaram ni ko Waly waxee. Salé. Merci beaucoup, Mbaye. La dernière fois, Mbaye, Mbaye a beaucoup de voix. C'est un homme multidimensionnel. Vous êtes d'accord Pèsez tous vos corps, frappez les balafons. Le lion rouge a rugi, le donc du pas. Voici l'Afrique, l'Assemblée, vive de mon couvert. Épaule contre épaule, mais plus que frère. est debout, ils y sont la mer et les sous Ils y sont la steppe et la forêt. Salut Afrique, mais... Excellent. C'est les journées portes ouvertes pour le projet APT. Le projet APT, c'est un projet de réaction performance de travail euh, et d'entrepreneuriat. Donc je crois qu'à l'école, nous avons un club, mais aussi on a profité de l'occasion pour faire une distribution des prix pour nos meilleurs élèves. Vraiment, c'est une occasion, mais je commencerai d'abord par saluer les professeurs pour le travail qu'ils abattent à l'école. Et aujourd'hui, nous avons pris comme modèle Madame Sen. Applaudissez Madame Sen on aurait pu prendre d'autres professeurs ou bien d'autres surveillantes ou d'autres surveillants, mais on a pensé à Madame Sen pour la qualité de son travail, pour euh, euh, euh, le modèle qu'elle propose, parce qu'un professeur doit être assidu, travailleur et surtout correct dans le travail. Donc Madame Sen, on, offre, un modèle aux, aux élèves. Donc aujourd'hui, c'est la journée ouverte du CM. Et nous remercions donc euh, le GED. Nous avons aussi devant nous le président de l'APE, M. Omar Ndiaye, qui nous appuie beaucoup pour l'école. Donc euh, je vais déclarer cette journée, comment dirais-je, la cérémonie ouverte. Et je crois qu'il y aura d'autres cérémonies. M. Mbaye viendra plus en détail. Bon, c'est un honneur pour moi parce que je représente aujourd'hui tous les parents d'élèves de l'école de Darussalam. L'école compte plus de 1900 élèves. Donc aujourd'hui si nous sommes ci bu nous nous dañuy vraiment c'est un honneur pour moi c'est un honneur pour tous les parents d'élèves de l'école de Darussalam bon je m'en xaw du mais je tiens simplement à féliciter le corps professoral de cette école. Bon les école Marina a problème Marina ay mais nous sommes la seule école aujourd'hui où les enseignants l'APE travaillent en symbiose pour le bon déroulement de l'école et vraiment je tiens à féliciter l'ensemble des professeurs l'ensemble du corps administratif Madame Sen vous nous avez honorés parce qu'aujourd'hui ben mais mon parent d'élève je suis très heureux aujourd'hui que nous parmi les professeurs de cette école école un un exemple pour suñu doom yi madame Sem, je vous remercie et vraiment je prie pour que le monde vous donne longue vie vraiment tout ce que vous faites pour nos enfants vraiment je vous remercie et merci beaucoup. Bonjour, Monsieur le Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour, chers invités. Et bonjour aussi, chers camarades élèves. Nous célébrons aujourd'hui la journée du club d'entrepreneuriat à Sénégal, dont l'un des, des objectifs, c'est de nous donner les outils nécessaires pour faire face à un monde où les, où les réseaux sociaux sont parfois dangereux où la communication et la collaboration sont les clés de la réussite, où l'hygiène et la santé sont au centre de l'activité humaine. Par ailleurs, nous savons que l'homme a besoin de croire à des valeurs pour relever les défis. C'est pourquoi nous avons choisi Madame Sen qui incarne toutes les valeurs de beauté. et d'amour du travail bien fait. Et je demande à mes camarades de l'applaudir très fort. Pour terminer, nous remercions nos professeurs encadreurs plus particulièrement. Monsieur Mbaye Pro, veuillez l'applaudir. Merci, merci Le module de chapitre 1 à 4 pour aussi au Président Act Sénégal et à l'organisation non gouvernementale JED. Belle et au Chinois. nous sentons ton nom, Madame C. de portugais, les attributs ne manquent pas pour vous qualifier. Vous êtes notre complément d'objet direct et les valeurs que vous incarnez continueront de nous inspirer pour toujours. Y'all You say, well, let's... Lead him, him, him, him, him, him. You out. I mean, you're get good, good, don't say all that. him, lead him, him. quoi lii di demagul benn lan lay jeex bu lay ndaw đâu fenn lan lay jeex waaye lu ne waay thế, suñu moromu jigéen ñi ne dañuy yàqule. ah mu defaraat sama jaay. moromu jigéen ñi waaye ñeexule. si naka. aywa.

non lu ma lay indi Karakos Karosas Karakos Karosas Karakos Karosas Karakos ma fekkoon jaamu jigéen am na solo waaw am na solo kay aywa yow naar bu ndugus naare ala kër Xin hỏi thóc Biển Sa sảm Nên nhạc Nhạc A à, sa nhạc Nhạc thức En sa nhạc En sa nhạc Ada peliknya buat kamu jadi peliknya buat saya. Tunggu tiga kali. Dekik, dekik, dekule, dekule, dekule. Ah, nunda mo kami un konon. Bunda kami un konon. Dinalan ba yung yang jang basa kanon? ñu soog leen a maye. waaw nan ngeen def ba jàppale ni si des. yéen waa Juli la ñuy waxal bàyyi leen seen doomu jigéen ñi ñaar ndax jàngum jigéen kat am na solo lan la lër mën naa doon président te lépp lu ñuy def te boo dem bu jigéen mu sax loolu laay ñaan ëllëg laaj bu waaye bu mën a seetlu Monsieur le principal, Mesdames et Messieurs les professeurs, Monsieur le surveillant général, honorables invités, chers élèves, à ma qualité de chargé de l'enseignement moyen de la circonscription de Thièsville, je suis très ravi de venir représenter M. l'inspecteur d'académie Baba par le canal de Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Kézile, je vous nomme Madame Fatou Diallo. C'est un véritable privilège car le projet d'amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat des jeunes du Sénégal, communément appelé APT, est un projet qui intervient dans six régions et polarise 210 collèges d'enseignement moyen, 60 centres de formation et encadre 500 étudiants, soit 270 établissements à sélectionner parmi un nombre bien déterminé. Cela est assez éloquent du choix porté sur votre établissement. Sur ce, je déclare ouvert au nom de l'inspectrice de l'éducation et de la formation le déroulement des activités du dit établissement. Je vous remercie. Je dois dire que je suis venu ici au SEM d'Arsalam, la deuxième année de sa création, avec comme principal M. Ibrahim Mbaye. Un travailleur, un homme de rigueur, un manager. En ce moment, Darussalam ne comptait que deux classes. Cette école qui est nichée au sein du, du quartier Darussalam qui lui a donné son nom. Salam qui signifie la paix. Effectivement, il y a la paix à Darussalam. C'est un havre de paix et de tranquillité. Et Ibrahim Mbaye a fait de Dar Salam ce que Dar est devenu aujourd'hui. Tout ce que vous voyez ici, c'est sous la direction de M. Ibrahim Mbaye. Ibrahim Mbaye est parti, il a passé le flambeau à M. Ousmane jai qui vogue dans le même sens. Et Dar Salaam, c'est un établissement où on note de très bons résultats. Ces résultats sont dus simplement au dynamisme de son personnel, au dynamisme de ses élèves et évidemment à son principal qui est véritablement un véritable manager. Je vais nommer Ousmane Ndiaye. Monsieur Ndiaye vient de le dire tout à l'heure, il est infatigable, c'est vrai, il est infatigable. Partout, il, arrive même que ce principal entre dans les classes pour surveiller les devoirs des élèves, en appoint aux professeurs. Vraiment, il est extrêmement dynamique. Et sous sa direction, Darussalam effectivement a enregistré de très bons résultats. Donc j'encourage l'ensemble du personnel de Darussalam, j'encourage les élèves et je dis bonne fête, vraiment bonne fête à tout le monde. Le projet d'amélioration des performances de travail et d'entrepreneuriat au Sénégal, au Sénégal, arrive dans un contexte où les élèves ont besoin de repères où l'entrepreneuriat est l'alternative pour lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi, au sein d'Arusalam nous saluons un tel projet. Pour rappel, il y a quelques mois, un plan d'action a été élaboré et exécuté à 90%. 200 100 élèves de 6e ont été enrôlés dans le projet. Nous avons effectué deux visites d'entreprise. L'une la manufacture des arts décoratifs et l'autre au village artisanal. Un club entrepreneuriat aussi est mis sur pied à l'école. Les parents d'élèves ont été informés. Le cirque aussi a été installé à l'école. Les surveillantes, plus précisément les deux Madame Ndiaye, ont été formées pour l'orientation scolaire. De même, les élèves aussi en sont informés. Ici à l'école, nous avons effectué quatre modules. Module 1, module 2, module 3 et module 4. Et aujourd'hui, la première journée porte ouverte du CM Salam est organisée. Et ce sera l'occasion aussi d'en faire une journée d'excellence en récompensant les deux meilleurs élèves de troisième, e le meilleur élève de classe de quatrième, e le meilleur élève de classe de 5e, le meilleur élève de classe de sixième. e et trois meilleurs élèves du projet APT, des élèves enrôlés dans le projet APT. Mais la particularité de cette journée, porte ouverte, est que les enfants, nos enfants, ont choisi comme professeur modèle Madame Sen Maguette Dité avec l'avis favorable de l'administration. Car Madame Sen s'intéresse beaucoup au caractère des élèves et les insiste à faire preuve de curiosité. Tenue correcte respectueuse de la hiérarchie, elle participe efficacement à la résolution des conflits en montrant aux enfants que nous sommes tous unis. Mais respect, madame, car vous êtes tout simplement opérationnel. Pour terminer, au nom du principal, je voudrais du fond du cœur remercier, féliciter l'ONG, JED, M. Traoré, Amina Niran Ndiaye, pour leur accompagnement. Et j'invite aussi mes élèves à méditer sur ces deux proverbes Wolof. Je vous remercie. Merci beaucoup. الله ñoo ngi fii ci sem Daaru ki nga xamante ni mooy Wally bu Thiès nee naa leen kat Wally 2 ah Wally Seck bàyyi ko xel kii mi ngi toj jamono. Wally laa def waaye en fait maa ngi kontaan bu baax di lay wax ne rek incha allah mënu maa damay jéem di ko wax ñi nga xam ñoom laa rafet di gërëm waa école bu baax di lay wax ne man xale laa ko ne ne sàkku rek ñaan ci yéen di la wax ne incha allah la tànn juin maa ngi au camp juin mi di bëgg fan yëpp ni ñëw incha allah di wax na ngeen def ñaan merci. waa TS Info pare nañu pour couvrir la ci émission bi ak lu fi xew ak ca camp juin bi incha allah wax dara. waaw incha allah di la wax ne incha allah fi laa ko nekkoon merci. Yeah. Petite question. Ben, qu'est-ce qu'on appelle une résolution de conflit alors On appelle une résolution de conflit pour trouver une solution au problème. Très bien, excellent. Eh, eh, eh, La dernière question. La dernière question. C'est quoi c'est quoi plus c'est quoi là signifie amélioration de performance de travail d'entrepreneuriat au Sénégal. Excellent, très fort. Merci beaucoup Merci beaucoup Waxee wax moom xanaa puuna la. Garib garib. ah xanaa puuna la. ah kooku di wax moom jigéen ñi xanaa puuna la ah. Boog ñu wow. wala dëgg la ah xoolal li xoolal li xoolal li dafa gën ñu dëgg la léegi ñu ngi mel ni ñu amul ah dafa yaakaar

dañuy nga wax ay damay damay dañu saa lii dégg ah waaw waaye baax na salaamaaleykum maaleykum salaam Guèye waaw joxum ko joxum ko joxum ko waaw rikal maa jàmm la maa jàmm la ana Modou ana Modou ana Modou ana Modou Modou daa dee Modou daa dee Modou daa dee wala ana Modou aja nih banyak apa dia panjang masalah ah, hari kan iya. ulang nanti kita ulang Mande, aku sama lagi. Kamu sudah boleh saya

cây cây cây cây cây Yok. Kamu boleh jalan. Apa jurusan saya kalau mau? Pura lampai kan yo. Saya boleh mas. Yo yo yo yo. Yo, mañana lo harán ahí pura lampai yo. Yo boleh.

ko doon may xaw ma may la goro gis nga su ma liggéey sama tànk bii balaa may demaat fee balaa may dox allah akbar alxalaatu xayru mina nawm. xoolal li wax dëgg la li wax yaa ngi dégg pour nga may nag moom xaar ma ma nekk ci moom ma jàngaloon sama doom ma nag may. du ma la dugg ci biir. yow yaay kii dem ba mu neex yow yaay kii dem ba mu neex ma ab sax eh toogal toogal laa wax toogal nga dund ko ma ne nga toog. lu may toog. jël sa tànk bi rek dayee la ko tali bi bàyyi la ko koñ bi magalee ko tamit yéen a la neex. Nabiye Baye sama gars yi buus ba. waaw wax nga dëgg Nabiye Baye sa gars yi nag buus ba eh toogal foo jëm. sonal na ma ngir yàlla yow ba ma. yow yaa ko sonal. yow yaa ko sonal. mën nga ni ba xale bu duggee école. te yi ba sixième munoo fexe ba jël sa tànk bi teg ko ca école boobu. kaay kaay kaay bu yeggale sama doom daam bu na jàng premier concours c'est Ibou Diagne daale bu soobee ak gërëm. mojel tare yalla dem ko bo tare mu ini ñu ma ki récompense ko ay ay ay ay ay tak ay ay ay ay ay may la a moom la. waaw maa ngi nii yegsi nga. ah Anam. maa ngi. ah yegsi na. waaw fu foo may daal. ci benn séedéer moo fi nekk. ah dama nga ne kilifa gu toll ni man ah bu gaa yi di jëlee ajuma di ma di di ma teg ca kanam nga may doolo ci suuf yow nag ma yëpp. ah benn garaaw yàlla ba. góor gi may la photo. yow yow yow sax nag maa yëpp yow xam nga yéen a maa ñëw pour xuloo di di di di di di Eh, gugur kira fa aduh sama dok mau kayak nyangol dok oh. nggak ada kayak abdul oh, ya, ah ab sang sugar kayak dok jis nggak bawa macam itu kan? dulu ya, nggak ada nang kayak abdol dama oh, jangko dama lay Eh, aku ini. Aku lagi beli dong. Wassalam. Asal kita untuk yaa bi dikk fego ma am sama liggéey digol ko ba pare nga ñëw di ma menace. lu rax ba di ma le menace sama doom ma jangal jàngale nga koy ab solo ah te nga ni ab sa dëgg la lii rek ngeen fi nekké xeetu xeetu programme mu ne ni ngeen ko bind ay ab sa ba ko fi ab solo rek ma tusakat. seen wi wax ñu la ab. lan la ab talent la ab ab ab ab ta. ab ta booba noonu la taa booba boo ko xëccee taay lay doon ab taay yaa ngi may dégg sama doom bëgg ab daloo wasalaam foofu laa am lu ma la wax sen bi di dikkee da ngay daal ñu wax la lan nga bëgg ab tëral la wax waay yow ah lay amélioration des performances de travail au Sénégal per per per per bañ may joxe per de man may joxe per ya may ok nga e ma ba pare nga ne invité nga ñëw sa doom yaa ngi liggéey fi lu baax. lu mu liggéey sama doom boo jël ndaare dégg nga ma la boo jël ndaare gërëm ko ko kay loo koy jàngalee ab. xamal la lañ ko jàngal apt kenn la kenn wax apt na lañ la wax. léegi apt xam nga man moo nasaraan daf ma koy wax ci olof mu mën a xam li muy li apt di sax. Oh astronomisme. waaw dina sa doom fi dikkee. premier jour bi nan lañ ko jàngal. les valeurs personnelles. te si àdduna. ba pare bu yoree xaar ñu xam lan lañ koy si. yow nag naka jekk ñu ne ma problème ay ya oke, sa bopp weng bi yow kay yow sama doom jàng ba yegg si fii jël naa rek nga koy gërëm salaire ah kër gaa depannya ne dépense nekk fa nga naan ya nga koy ay ni ha lanyala yakhwezerelo khalisam ilomao dankoyejanga nimisere khalisam kon sabudirikani yakhweserel khalis boko serele khalisam moto sakat kay kay kay kay kay koku mom koku babay bi la nur xel mi nekk ci baay jëpp ngi ci mom dom day waaw xel mi nekk ci baay jëpp ngi ci mom leneen nag laa lay xamal sama doom gis nga bis bu ñëwatee naan ma yoo ko ab rek dinaa tu sakat yaa may dégg parce que bi ada dem Yang yaa ngi Dan menacé dama fekk sama liggéey waaw waxal ma bàyyi ñëpp ngay def nànk ju expliqué la la Abdou di jëriñ. Abdou day tax sa doom bu demee ba màgg ba yor entreprise ñu wax lan la mën a def ba gérer entreprise am. bu amee lan lay def mu xam lan la koy loolu la alt bi jëlee. yow tamit yow tamit ñoom may la Poro yow yow yow naka jekk yow xam naa ne yow Poro nga mën a sant mënoo ma ko na wax ca la Poro mënoo ma ko na wax la ngay def naan. waaw waaw soo laa expliqué def moom kay wallagee na nank rek laay def eh, xaw ma mu ko woon nii eh, nu muy gérer xaalisam eh, nu muy yooyu yëpp teg naa ko sa loxo daa mën a jàng dégg naa ndaare ndaare bu mu jëloon nga gërëm ko ba léegi mooy daw xel mi bàyyi bii xel mi yor moom la yor mbay siapa pala ko apa bax deng kon bu kami deme xamé nang mau woni nak mako warna télo bu ko defé ñu mëna juwa ci kaddo Coding karena karena nyer nggak deh, lo kan? Mau kayak deh, nggak nggak deh. Wow, Nang nggak apa Karena kayak gini mau kondang deh, kayak kayak kon, ya lo pak, mang itu kon bukan deh yang mah, peres kok punya nana peres, ngunil mah kok, dengan dengan mau duit nolan tapi, lu udah kamu jarum.

Permettez-moi tout d'abord de taquiner les amis anglophones. Uh, first and foremost, I'd like to introduce myself. My name is Mr. Fowler. I'm the General Supervisor the chief staff of the Okay, I'd like to do a great congratulation for Mr. Guy. Mr. Guy, I ask you, all the people here, to clap the hand, you know, for Mr. Guy. He's a big man. He's a very, very dynamical man, you know. So I congratulate all the members of Darou Salam, Mr. Je, je voudrais tout simplement traduire un peu en français, puisque nous sommes dans une institution où on parle français. Remercier tout d'abord mon ami, Mr. Ndiaye. Je vous demande de l'applaudir très fort, très fort, très fort. Pourquoi Parce que c'est un peu l'histoire. Il a toujours pour cette école. C'est un homme infatigable. Depuis la création de cette école, il est là. Il est là. Il y avait certains qui cheminaient avec lui. Mais le temps ne leur permettait plus. Lui, il continue à cheminer. Il continue à faire le travail. Il n'a pas d'heure à l'école. Il travaille chaque jour. Il a toujours épaulé du chemin, le principal, là c'est Et il continue à le faire avec Michel Donc, c'est un sentiment de cœur que je voudrais lui dire. Que Dieu vous remercie. Que Dieu vous accompagne. Parce que vous le faites avec détermination et sans toucher. Ensuite, à l'endroit des invités, notamment l'AP, un projet innovant, un projet qui a de l'avenir, qui a laissé toutes les écoles venir ici au sein d'Arussalam pour apporter leur contribution. Rokhaya Gningue responsable suivi évaluation de l'ONG JED Jeunesse et Développement euh, l'ONG JED euh, est une ONG issue du mouvement scout et plus précisément euh, de l'association des éclaireurs et éclaireuses du Sénégal euh, L'ONG JED est une des ONG euh, partenaires d'exécution du projet Ap Sénégal. Le projet Ap Sénégal, qui est un projet financé par la fondation Mastercard et euh, mis en œuvre par EDC, qui est une ONG américaine. donc pour le Sénégal, six régions ont été choisies pour dérouler le projet APT Pour la région de Thiès et d'Urbel, c'est l'ONG JED qui est partenaire d'exécution. Pour, les régions, pour la région de Kédougou, c'est l'ONG et pour la, région de Ziguinchor, c'est Caritas Ziguinchor et pour la région de Kolda et Sédiou, c'est Caritas euh, Kolda. Donc euh, le projet Apt Sénégal, comme euh, ça a été dit tout à l'heure, c'est un projet innovant dans la mesure où c'est un projet qui prépare les élèves dès la sixième pour les euh, collèges euh, d'enseignement moyen et dès la première année pour les centres de formation professionnelle qui les prépare déjà au monde du travail. Donc comme le nom l'indique, euh, Apt Sénégal, aptitude pour la performance au travail et à l'entrepreneuriat, on prépare les élèves, on prépare les apprenants déjà à connaître le milieu professionnel, à, à les préparer au milieu professionnel en se basant sur leurs valeurs, en se basant sur des références, en se basant sur beaucoup d'autres choses pour euh, préparer ces, enfants-là. Comment se déroule le projet app Le projet app se déroule d'abord dans les salles de classe avec des, ce qu'on appelle des modules APT, des modules sur différents thèmes, valeurs personnelles, euh, aptitudes financières, etc. Euh, et se déroule aussi en dehors des classes, ce qu'on appelle des activités extramuros. Euh, pour les modules, c'est enseigné par les, des, encadres, des professeurs qui ont été formés sur les modules APT, qui déroulent les, les cours au niveau niveau des classes, deux heures par semaine. Et en dehors des classes, il y a ce qu'on appelle des clubs d'entrepreneuriat. Et au sein de ces clubs d'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'activités aussi qui sont, qui sont déroulées. Des activités d'épargne et de crédit, des activités comme la, visite la journée portes ouvertes euh, à laquelle nous venons d'assister. Il y a aussi des activités culturelles, il y a les visites d'entreprises, etc. Donc toutes ces activités-là, c'est ce qui englobe le projet Après Sénégal. Euh, pour Thiès, par exemple, 48 établissements ont été choisis. Quand 48 centres de euh, CM ont été choisis pour Thiès et 15 centres de formation professionnelle euh, ont été choisis pour Thiès. Ça veut dire que tous les établissements ne sont pas enrôlés par le projet ACT les établissements ont été choisis avec des critères bien définis, euh, des critères d'excellence, des critères de leadership du, principal, etc. Donc tous ces critères-là ont été définis pour choisir des établissements au niveau de Thiès. Le CM Salam fait partie des, établissements qui ont été choisis dans la région de Thiès avec beaucoup établissements. Donc nous saluons euh, l'effort qu'a fait le CM Salam pour mener à bien les activités dans le cadre du projet. Et nous espérons que ces efforts-là vont être renforcée pour, les années à venir. Ces journées portes ouvertes sont à l'image de l'engagement et de l'entente qui règne entre le principal et son personnel en général et en particulier les six professeurs qui ont été formés euh, pour accompagner les élèves par rapport au déroulement des modules aptes. Et j'ose croire que les années à venir vont encore nous accorder de meilleures choses et encore des raisons de revenir et que cette école continue d'être un fleuron par rapport à toutes les autres écoles qui ont été choisies et qu'elles puissent inspirer ceux qui sont encore à la traîne. Et je crois que c'est encore des raisons de croire à la pertinence de ce projet-là. Nous sommes déjà accompagner ñu xam tamit lan mooy métier ak nan lañ leen di orienté ba nga xamante bu ñu demee tey ba war a mën a liggéey seen liggéey boobu surtout en côté entrepreneuriat dinañ mën a demal à travers études yi ñu leen jore jox donc ñu ngi remercier déjà waa école bi parce que seen accueil macha allah et aussi bu ñu gisee ni ñuy élèves yi ñoo répondre donc ça veut dire que ñu ngi maîtriser ñu ngi doxalee ak apte donc pour ça ñu ngi leen di remercier au nom de l'ONG donc di wax rek yàlla liñ ciy xaadaa yàlla ñu ko yàlla defal tamit mu gën ci ñun daal. thème euh, Darou Salam mooy émission lu fexe xew tey ji nak manifestation bu machallah dal daal ñoo ngi ne ak principal principal nga def. donc euh, ma nga lay gërëm di la di la kii bi ma nga wax ni problème projet apt fi école bi ñu ko commencé ci au mois de octobre octobre la commencé fi on a eu à former six professeurs même man bu ñu formé ci établissement yi bokk na ci euh, formation bi nous ko une chambre de commerce Fi nañ ci école yi nga au niveau du Sénégal on a pu faire les quatre modules Ah fi vraiment def nañ quatre modules yi te eh, élèves yi dañoo adhéré vraiment ci projet bi parce que y a monsieur Mbaye qui est la cadre principal mais tout se déroule bien au niveau de l'école il y a aussi que aujourd'hui dañuy def euh, journée porte ouverte aidé par l'ONG GED qui encadre le projet APT. waaw du ñu ñëw ba fii nag te du ñu waxtaan ak principal principal kontaan nañu ci yow ñun waa Thiès Info nee naa ku ko bëgg a seetaan na ngay def www point Thiès Info point com nee naa leen lu ni fàng kenn du ko jeex maa ngi dem ba beneen yoon nee bu ma dellu see day gëna neex nee naa bàyyiwuma kenn fu ma waay kupp rek ma baat rek. wax sa mbaaxu way du wàññi ci sa mbax dara bima ma dugg see ci sem euh, daru salam bi ba tok dañ ni ma marraine bi mooy madame Sène école beeg élèves ñoom ñëpp tàcc ko jox ko loxo ni ko yow la yow la yow la kon madame Sène mention spéciale ndax nee naa nag lu ne fàng kenn du ko jeex te garab ci kaw lay fekkante nga def acte bu rafet boo xamante ne xale yëpp jël la def la yaay ba ngay dugg si ngay korne xale yi kontaan madame Sène madame Sène madame Sène na nga def maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm. waaw maa ngi sant bu baax. waaw ban ban yëg-yëg nga am ci biñ la marraine nga nekk di jàngale ci école bi ñu marraine la. naa kontaan rek. te wax ni bis bi moom mosuma am bis bu Buma ma gën a neexee nii. waaw vraiment kontaan naa ci bis bi trop sax. kontaan naa trop maa remercier ñëpp sama dëkkandoo yi ma àndal sama collègue yi ñu ànd ak man depuis ci ba léegi ñëw taxaw ak man ci fête bi. remercier élèves yi remercier ñëpp vraiment élèves aussi mosuma leen mënuma leen fay parce que ci nombre de professeurs bi ñu nekk yépp ñu choisir ma loolu reey la ci man maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ñoom ñëpp nañu góor gën a góorgóorlu comme ça ëllëg di mën a soutenir seen i parents content naa trop. waaw man madame Sène dama lay laaj naan émission lu fi xew ak Thiès kaay benn dëkk ñaari gaay ah, benn gaar ah, plus aéroport ak Thiès info dama ni ñaata nga def ci école bi. man depuis 2011 laa ñëw ci école bi man xam naa ah, ay 5 ans rek laa ko war def. macha allah nga def fi 5 ans. ñu tabal la médaille door ci école bi sargal la ci école bi kon kooku sant yàlla boo demee nga ni sa yaay jërëjëf ndax loolu liggéeyu ndey rek a ko mën. ah merci beaucoup lii lépp liggéeyu ndey la maa ngi gërëm sama yaay di gërëm di ko gërëm daal ndax lii vraiment liggéeyu nday la maa ngi doog xam ne sama yaay moom a liggéeyal lii maa koy remercier bu baax a baax. kon sama gars yi damay tàggatoo ak yéen ak madam Sène ak madame Sène eh, eh, sama caméraman. Euh, madame Diakhaté moo ngi ci wet gi. waaw ñun ñun ak madame seen ñoo bokk école. Ah boole ko ma bokk ak moom koñ. Ah. kon lii su ko amee ree da koo mérité na dafa baax. waaw yow madame naan. Euh, madame Fall. madame Fall waaw waaw. waaw madame Sène mii li mu am daf koo mérité. Mhm. ca koñ ba la ñu dëkk ak moom de. Mhm. waaye. ah sant yàlla bu baax na gën a dolli sant ndax waajuram yu baax yi ko euh, may lii tey ji sant yàlla bu baax a baax a baax waaye ku baax la nag bu baax la wax dëgg yàlla ñun ñi ay dëkkandoom de kontaan nañ ci ñoom moom moo tax ñu ànd ak moom jàppale ko ci bés yow madame nan madame Diouf waaw man de dama kontaan ci suma madame Sène bi lii mu am nii nag du chance mérite la daf ko mérité ndax moom école bi la ñu xamante mais dañoo dem ba nekk ay doomu ndey moom ku baax la lii mu am nii dañ ko ko yéene ba pare lu mu mérité la comme ni mu ko waxee ndeyam moo ko liggéeyee ndax liggéeyu ndey comme ni nga koy waxee day feeñ ci milieu mooy lii rek mooy lii rek ñun ñëpp ñoo kontaan ñun ñëpp yéene nañ ko ko ñun ñëpp kontaan nañu ah. vraiment waaw dama bëgg nga jox madame bi ci wax momit madame nan madame Diaw madame Diaw <laughs> yow no. Ata ata. sama cameraman jël ma wuy ma madame Diaw ki man may buuram ndax man mi sek si nga naar nak man may buuram madame Diaw ah man mi ya kan liggéey ya nak man yéen ñëpp man may seen buur xana neex waxal madame Diaw bu wax maa ngeen nag sama cousine la waaye dafa iya. baax kenn mënu fay bisam bi ñëpp ko yéene iya du sens mérite la liggéey naa liggéey ndey waaye liggéey li xale yi xool ba def ko choix moom xañ na xale yi du par hasard ko yéene bisam bii lu mu si bëgg yaa na ko yàlla defal xale yi dolli di ko yéene di ko yéene ba ko leneen lu sut lii man loolu laa ko yéene <laughs> yow madame nan di, madame di. waaw ah xanaa di kontaan rek vraiment ci école Daaru Salaam bi parce que man yàgg naa fii ñëw di liggéey ak ñoom di jaayante ak ñoom fu ko dalee nag ci euh, ci kaw ba ci suuf nag ñoom ñëpp a baax

ci Ersam uh, Darussalam, sem uh, Darussalam, Darussalam de. Kollegi nak kon sama cameraman dama bëgg madame Sen mi nga xamanteni moy marraine bi mo accompagner ñu ñu daal di dem nak ba benen yoon nee na ngeen pare ku nekk dina ñëw damay dal ci sa kaw barki demb mak Sidi job la woon ci sapeur pompier tay maangi fi ci Darussalam suba damay dem ci kanen lay dal de ak ku mënti doon maangi ñëw kon sama gaay ñu ngi taggo dama naan la big up à